waxtaan loolu. ñu ci victoire boo xam ne tey kenn. waaw di si daa mel ni Zarko xewaat na de. waaw non Zarko moo xew xam nga rek yaa ma gën a xam àdduna noonu la gis nga aussi dafa am affaire bu am gars yi ñoom boo leen daan ah, xam nga mais safaan ba nag mooy loolu waa ñuy sant ñëpp képp ku jàpp si combat Zarko ba képp ku si ñaan képp ku ñu ñaan ñu xam la ñu bañ la xam ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant quoi. mais combat bi damaa ñëw ci open press bi nga ne ma amicoo la du ma wax ci micro. en tant que Zarko daanu mais da nga xamoon ne Zarko affaire bi lan la woon. non combat bi man dama xam ne combat bi fii Ada Fass ak Zarko dix combats billaahi walaay Zarko daan ko dix fois. ah. du benn kër si kër si yaa ko doon préparé ñu ngi nii mais seen dëndul benn gis nga Zarko combat bi préparation combat bi xam nga libidoor xam nga selemele mënuñu am si niil daleen di yenu xol sànni mënuñu am si moom niil ay nandi fal xool dañu fil dem seen yoon ba Libidor moo ñëw na ma grand ma mu ne ko waa ji mi ngi doole boo xam moom daf ko jaaxal. mais sanction nga xam ne kii jël na ko. non sanction bi mooy parce que fu ñu toll nii ñun ñi ngi waxtaan ak waa écrit face Benno comprends nga buy xam naa fi yàggatul dañ def benn point de presse di si woon ak axtu làmb yëpp parce que olof Ndiaye dafa ne liy ram si ñàkk ba a jëm comprends pesum borom kas pesum kanam borom moo koy fajal boppam comprends nga c'est trop c'est trop c'est trop nit ki booy jël ay mesures bul tëju sa salle climatisée dina def lu di di jël jël say mesures yoo xam ne. bëgg a wax non sa nit ki booy jël man mi dan maaj man dan maaj. sa sanction jeexagul parce que bu jeexee dan may bindal kii dan maaj aj sama mbër mobile delluwaat na États-Unis gis nga aw càndum dafa am benn affaire bu am gis nga nit ki. man bi ma jee ba léegi maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi faj samay soxla comprendre nga moom it bi ñaay dellu na États-Unis mi ngi si ay business am nit ki da nga koy jéem a aj benn côté foofu da koy da koy euh, euh, jéem a attañaka wala da nga koy jéem a naqaral wala da koy jéem yàlla xool fii yàlla fi ne yàlla moo fi ne man bin ma jee ba léegi dégg ko fenn ma wax ñu ñëwaat gis nga Zarko ak Ada Fass président Macky Sall dafa ne dañu war a utal jeunes yi emploi mais ñii ma gis nii dañuy àtte ñàkkal seen yi bañ leen utal am lii nembar doo bëretin mooy amatoo liggéey. un an un an amatoo liggéey. mobile de cinq ans. mobile de cinq ans kooku pour moom nee na ñoom waa CNG dinañ làmbam day yàqu parce que cinq ans kookaaj mooy bul bëretin comprendre nga. man waa CNG yoruñu sama dépasse yoruñu sama dund la may lekk man maa koy régler sama bopp sama njaboot yoruñu ko mais nit ki booy jël ay décision woowul askanu làmb ñi nga xam ne dañ bokk ci làmb woo leen waxtaan ak ñu man kat lii lii lii ak lii laa bëgg def mais Balla Gaye Boy Niang ñoo waral lii mais yat bi dalu leen. yat bi ñii la dal. gis nga décision boo ko jël da nga koy jël début saison ngay jël say décision ne lii ak lii mais dem ba saison bi ne si digg bi ngay jël nga tëju sa bureau climatisé te waxuma dara mais bureau CNG am na ñoo xam ne xamuñu la ay si football ba lañ nekkoon am na ñoo xam ne ñu ngi si biir football ay nitu football lañu football lañ xam. football lay xam man gis naa si koo xam si football bi la ne woon ñu ni ko si làmb ñi i nekk day ñëw pour yàq làmb ñëw ñu pour defar làmb ñu ah. ñu ngi préparé benn point de presse bu boobaa ñoom di lañ dégg loo xam ne mooy loolu waaw ñu moo doon entraîné ki nga xam ne mooy Zarko ci làmb ji yëpp nan ngeen dundee làmb ji ak fête bi ak mbégte mi en tant que doomu Grand Yoff dama la gis nga ne ma loolu du combat ma ne la lu tax du combat nga ne ma keroog jour si nga waaw ñi ngi sant yàlla bu baax julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waajur fee ñu nekk yàlla na leen yàlla xare àjjana waaw soo ma laajee si sarko dam si sawar a wax parce que Zarko nekk na nit koo xam ne ñii ñu ko jox du ñuy ay adversaire am ay wax ni billaay wallaay taala ñii du ñu ay adversaire kon la dëgër non la dëgër lañ soxla Gris Bordeaux ñaar ñooñu am du ñeexu la ñu nit du ñeexu ñebe ñun xam nañ sunu mbër xam nañu ku ñu yor xam nañu sunu mbor xam nañu ku ñu yor te grand. bu jëlee combat bi jarul muy entraîné jarul muy dem boobaa su boobaa fu mu foogeewul. Zarko moo mën la moo mën keneen ku la dëgër ñoom ñëpp moo leen mën. Zarko aada faas la. wallaahi wallaahi ñii ñu koy jox du ay adversaire am ñii laa wax ñu ay adversaire am ñun xam ku ñu yor te waa Grand ñoo nekk nit ko xam ne Grand Yoff su booloo xajul si kenn Grand Yoff bu booloo xajul si fen billaay wallaay Gris na jël avance bi wala la de guerre. Gris na jël avance bi wala la de guerre ñun loolu lañu soxla ñun. mais ku leen jox la de ngeen jël ko man waxuma waxu Gris Bordeaux mais la de guerre di saay. la de guerre na ñëw di toog fii bëreewul amul sens parce que làmb ji la am na ñëw ñu bëre. Zarko may na sens ay rakam na la de guerre may sens ay rakam xoolal Zarko ni mu def ku daan ma euh, bàyyi ma njoon. wàccaat jël Ada daan ko léegi fan la jëm si kaw la jëm. ba daan bay gu gi. non Siteu Baye Fall la. Zarko Baye Fall la ñoom ñaar xëy na liñ ne seen diggante ñoom ñoo ko xam mais Siteu na jaar fee ñun ñu jaar fii rek. Reug Reug dee nga ci yoon. waaw na jaar fee ñu jaar fee ñun daal ñu ngi toog di ñu ngi yokk suñu entraînement parce que ñëwoon nga laaj ma ma ne la lii du bës lii du combat. non xeebuñu ko dañu xam ne li ñu entraîné te 7 jours yi mu wax si la entraîné de 7 jours la entraîné man maa ko yor 7 jours la entraîné Zarko xeetu bëre yi ne si moom waneegu ko sax xeetu bëre yi ne si moom waneegu ko suñ ko joxee si ponkali si la koy doog a wane. suñ ko joxee la de guerre. la de mu woon ko ni fu mu taxaw dina ko jëli barki Seydina Mohamed fu mu taxaw dina ko jëli ñu jox ko Gris Bordeaux mu. la de guerre suul tànk. déggoo su taxawoon géejewaay ñu fekk ko géejewaay. maa wax li maa wax leneen lu ko ñoo ngi la jaajëf. waaw sant leen gërëm leen.